xam ne vidéo bi nga xam ne seetaan nañ ko léegi muy ay naal yu am solo yoo xam ne ñu ngi ko naaj ci Porokhane parce que yéene dem eggale ko hmm. kon dañoo bëggoon naa bu ñu jullee timis ba pare rek ñu continuer jaayante bi fi nekk ni dañuy ñëw waajal ko incha allah jaayante bi nu muy demee jaayante bi képp koo xam ne da am loo jaayante rek ak soxna jaara boo koy indee dañ ñu koy bindal sa tur hmm. bind sa daayira bu dee individuel ay ñu bind ko hmm. suñu paree loolu la ñuy dajale yóbbu mën a def àggali ne sumb nañ ko fa dem fas yéene ko àggali ci soobee yàlla macha allah ku ci bëgg a bokk xam naa teewul fii nan lañ mën def ba jokkoo ak jot leen ci benn numéro voilà wootee ci 77 334 38 26 allah ma bëgg looy am ci lu baax maam Cheikh Ibrahima Fall nee na kooku jox sëñ Tuubaa day xëy te nee na lu xëy kooku jox du ko jël yéen ñëpp gis ngeen vidéo bi sëñ bi li mu wax soxna Jaara mii lu ko waay jox dana ko def ci liggéeyu Cheikhul Khadim bii dana ko def ci liggéeyu soxna Jaara bii maam Samba Jaara may na dafa waxoon ni maam Samba Jaara dafa waxoon weewaag yii di xeeñ ak a dóor nee na borom weewaag yee gën a wóor gis jaan ba noppi ba wasi wati soo di dóor ñu tere jaan alal bu amee daal di bii tàng tàng ñu jëppuloo xam ne ni ngeen di jëppuloo gis ñam mu mosuloo xaw ma dañ njëriñam

ci liggéeyam moom la nga moom macha allah suñu Cheikh Fatma moom sëriñ euh, Bachirou waaw kay waaw waaw. cinq cent mille lii la war a dig Touba Rasupoir Adja Kelle Fall waaw waaw. loolu la arrière yow loolu la arrière rek garde ma jëf Adja rek ko Kelle Fall Maam lool barke borom Touba li ma dal ngeen daan ci ñaari soxla ñu fa borom ko mbàkk ku ma jaxaloon lu bon na la dal ñeenti junni ñeenti junni ku ma lay xam barke borom Tuuba ku ko jëlee ñaar ku ko jëlee juróom-benn ñaar ku junni cent ci jëriñ kër Fall ku ko sóob la nga yokku ñeenti junni ni ngeen ni ngeen ko defee ci xew yi ba dem sowar man daal beneen bon la ku ma ñaar

trois cent mille la Adja Kéré Fall Baye Fall Mame Diarra Touba Ouest Foire Touba Ouest Foire parce que damay la ko jóg waaye sama soxna si dama laay ma bàcc bi day ouvrage yi wala dama mën soxna su rafet ak des yi ak yi boobu lu suuf si doon xool boobu boobu lu suuf si doon xool ba sama soxna si quatre cent dugg na quatre cent ñetti junni juróom ñett फैसल मंजर क्योरी इंटरनेशनल शेख सामी अकल गैर जीरो मनते अगला ने दिन दिखरे ये कफे ये गुड नहीं ये फुली रे वो येला में ये ये ये सही है नहीं नहीं pour Serigne si voilà dañu koy fal cinq cent mille ñaata laa amagum léegi million bi yokk na ko kon mbokk taal bi yéen ko dégg tey fii ci bisu jaayante bi nga xamee moom la mu soxna maam jaara Mbàkke bintu Cheikhul Mourtala suñ moom suñ Mountakha xalif général de Murit maanaam woote fii ci Masaalikul Jinaan kon ñu ngi koy fàttali mbokk taal bi yëpp incha allah ci jotaay bu am solo bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla nañ ci am ndam ak ngërëmal Cheikhul Xadim ak ngërëm soxna jaara ci liggéey bi nga xamante ne soxna maam jaara sumb na ko ànd koog mbokki euh, taalib yëpp waaye nag ànd koog ay euh, kilifaam ànd koog mbokki euh, mbàkke mbàkke yëpp mbokki buso be yeeg mbokki arxuraan ak ñëpp rek incha allah kon daal mi ngi nii liggéey baa ngi nii gis nga ko ni mu amee solo daal nag suñu borom gën a barkeel te may tam ak ngërëm Cheikh Khadim ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërë ngeen